naa discours bi bu baax déglu naa ko bu baax mais daal ci gàttal li ma lay résumé la mooy la ma la waxoon ca commencement bi moom waa ji su ko jàppul ci kaso bi dana fexe ba du nekk président ba illaa du présenté wu ci deux mille vingt quatre la ci lañ nekk nii ñu ngi ci deux mille vingt trois ñu ngi ci deux mille vingt trois deux mille vingt quatre yi chiffre huit la chiffre boobu nag lim kiis la lim kiis moom chiffre boobu baaxul ci moom waa ji bu ko tëjul bu bu fekkee ni borom réew mi am na boo boo information sax du ko tëj koy def mooy day fexe. bañu condamné ko par kayit mais mom bu doon mom kaso bi mi ragal du ko bu ma doon mom bu amone kilifa kaso bi mi ragal lol mo doon ablay wad kaso bi mi ragal day daw duggu ci bu ca dawe duggu rek nek président waaw man maa la wax li man Serigne bay mais yi ngay gis non gis na ki bi 90000 bi yi doon am ci kii trente minutes yi xaw ma quinze minutes yëpp suivre naa ko mais loolu loolu sangatu bayre la rek loolu bokkut ak pouvoir bokkut ak nguur nguur dafa jege wilaaya fi ñuy fale président yi foofu lañuy ñuy fare aqtaab yi waliyu yi moo tax ku jotul ci xaqaayix yi mënoo xam xaqaayix yi mooy réalité yi ku ci jotul dëgg-dëgg doo mën a xam te moom moom ki ma gën a yaakaar ni moom mooy toog ci réew mi su borom réew mi deful troisième mandat te yaakaar naa dana def troisième mandat ndax moom chiffre trois chiffre am la hmm? ki ma gën a yaakaar mooy Khalifa Sall mais du seen waa ji xam naa loolu nag moom du leen neex yéen mais loolu bu fekkee nag def na troisième mandat moom li mu waxoon bu doog soow ak suukar. caaki rek kii xaw kan moo xaw ma kan mooy nekk suukar si ba sàppalil ko boolam ba mu mën a toog mais procureur bi waxam yi di ma ni ma ci déggee ak élégance bi mu waxee di déglu naa li mu wax ci français déglu naa li mu wax ci wolof ak ak document yi mu joxe mooy xam naa ba ba fa ñuy jëm seen waa ji dana dinañ ko jàpp de illaa danañ ko indil problème de Mom, mom, gisagul affaire bi mom, ki wogul togogul bi ci dess moy mom maqama damu la la amé manam place direct ci la nek même su forcé pour dem palais wala indi ki kérok ma ngoy dégg muy tuddu affaire guerre civile mom mom loy war nako ko moytu bu baax yoy su amé ci réew mi mom du ci mësa tok yeen nak mom problème bi ngeen amé moy nang wo len kenn ku len wax dara fo ngeen nangu ñu len di critiquer. gis nga affaire affaire sangatu Zulqarnayni surtout Yuusufa moo indi problème mu jigéen bii mooy aji Sarr te loolu li gën a kii moom moom moo baax moom mooy mu daw wax wax ni président dama bëgg a dugg kasa te bu kenn jóg waaw mais moom dafa ragal kaso bi te Yuusufa dafa waxoon ni rabbi asijjunu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi moo tax mbir yi mbir yi niñ koy foogee ak nii am dana wuute de moom maqaama damm moom moom turoom rek maqaama yoon na Seydina na Ousmane moom la amee te ñi yor yor alxaqaayiqu samaani yi xam nañ ni Ousmane maqaaman jalaal yàlla te jalaal damm la bëgg deret moo tax ma ragal ni bu doon doy nekk président tamit ci deret bu bari ci lay jaar te maqaama yonent yàlla Ousmane fukki maqaama la ak ñaar mën na nekk fukki weer ak ñaar mën na nekk douze mais gis nga yonent yàlla Sulay kii maqaama Usmaaniya dañ ko rey mhm. moo ma ne la moom bu toogee góor góorgóorlu sax ba toog ci pale bi dañ koy coup d'état ko moo tax yëf yi ah yéen jotagoo leen ci affaire bi de muñ leen rek <laughs> ak seen gaa yi saaga suñu sëriñ si